ربي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نزولي وتأييدي ويزيل الردى من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديم الله وجل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي وامر البرايا للإله يسير سوري وأيامي غدا لي شواهد بكوني عبد الله وهو الشهيد ستوري في الدار مدهي محمدا بنزم ونزل وهو المهمسة البشور كتاب الله وسنة التي بها أهتمي أمانا وقصور قصور خلق والأهل عني تفرقا لمدين الذي عنه المدين خسير خلاص يسخر ما يشاء لمن شاء بتيسيره وهو قدير فاكرم به ربا نوى عني الرداء وساق المنادي والجناب حقير حنيت به ربا asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi si neetaan ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen baal ak di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu jóge bu weeru koor gi ñoo ngi fi nag ci Mbàkke Kajoor di dëkkub cosaan dëkk bi nga xam ne nii fi la yoonu murit sosoo tey jii di ñeenti fan ci weeru korite wi atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom dëppoo ak atum mille vingt 2024 ñoo ngi nag ci bis bu tedd bis bu màgg di bis bi nga xam ne nii eh, dañ koy fàttalikoo lenn ci taarixu sëriñ bi ñi koy taxaw nag di sëriñ eh, njabootu ak sëriñ Mbàkke Kajoor ñoo ngi nag ci bërëb bu tedd boo xam ne ni xam naa ne bërëb bu am wàccuwaay la ci eh, dëkk bi sëriñ bi ñu toogal dana ko indi kon ñu ngi toog ak sëriñ Abdoulahi Mbacke bokk ci njaboot gi waaye bokk ci ñuy taxawu bis bi kon sëriñ bi ginnaaw nuyoo ak ziar yi rek bisub tey bi ak pàkk bi nga xam ne fi la nekk tey di bërëb bi loo ñu ciy leeral bisimilah. ñu leen di bu baax a baax a baax di leen ziar di leen bis bi nga xamante ni bii ne tey mooy bisub Mbacke Kajoor bi nga xam ne fi la daje dara subu ko lu seexul xadim bis bii. ginnaaw bi Serigne Touba radiyallahu taala anhu jógee ci géej gi mhm. maanaam moo sabab bis bi mhm. bi mu ñibbisee ba jaar Daaru Salaam ba ñëw sànnoo si ba wooree fa ba jóge fa ba jaar ci ñaari béréb yi mu jaar ginnaaw bi ci ñeenti fan ci weeru korite tam yoonu bisu altine ci la sëriñ bu mag bi radiyallahu taala e, ñëw fii ci Mbàkke Kajoor ñëw e, yendu fi fanaan fi ba xëy e, doog a jàll bis bi nag Euh, néeg bi nga xam ne fi lañu ñu toog tey mooy néeg bi nga xam ne ginnaaw bi Seexul Xadim jógee ci géej gi ci ci kuréel bu tedd boobu néeg bii fi la ñëw fekk fi sëriñ Mbacke Kajoor euh, sëriñ Mbacke Kajoor nag di bàyyi taxam ndax mooy caatum Maam ay Aysa ci ay doomam yi nga xam ne ñoo dund euh, mu nekkoon koo xamante ni bii nag ku teeloon a jox Serigne Touba boppam la waaye ku amoon ci moom yaakaar la waaye ku amoon ci moom kóllute la ba jël ak njabootam gépp dara mos a génn Serigne Touba. Mhm. njabootam gépp la dalee Serigne Amar Fall mi nga xam ne Serigne Mamour Anta Sali moo ko tuddoon tudde ko boppam mhm. ba ci Serigne mi nga xam ne mooy am caatam nga xam ne moo ko wëlbati ko waat ko Serigne Mor Anta Sali mhm. nga xam ne ab taawam ak caatam yëpp Serigne Mamour Anta Sali la ko tuddee euh, Serigne Mbacke Kajoor moomu dafa nekkoon koo xamante ni bii ne dafa yàggoon a am xemmemte ci sëriñ bi ndax dafa wax ne bi mu ganee adduna rek la waxoon Serigne Mbacke Mor Anta Sali ne ko Ahmadou mii moom dama bëgg nga ma ko moo tax Serigne Saliou radiyallahu taala anhu moom Seexul Xadim dafa daa wax ne sëriñ Mbàkke sëriñ bu mag bi waxtu wa mosaa wax ab Serigne rek Serigne Mor Anta Sali la ci waaye bu ne wayjur rek sëriñ Mbàkke Kajoor la ci loolee nag mu séddoo woon ko tax bisub tay bii Serigne Touba bi fiy ñëw dafa indil Serigne Mbàkke Kajoor sërite bu rëy ndax diiru ñaari junni bandi xalima yi nga xam ne moom la Serigne Touba yoroon doon ko bind ci biir géej gi Serigne Touba bi mu ñëwee ci ci néeg bii moom la jox Serigne Mbacke Kajoor mu nekk ci ñaari waxande muy ñaari junni bant xalima ak fukki mbubbam ak ñaar ak lewetu weexam ak kawaru boppam ak kaamit bi mujj ji ci géej gi ne koy bàyyi Mbacke yow lii mooy sëb sarita loolu ci bis bii la ko Serigne Touba radiyallahu taala joxe woon ndax dana ko xalima benn bu ci ne kun la mën naa tukkal àdduna balaa jant bee so daan ko te suñ borom damaa diggal bu ma ko jox kuy nelaw bu ma ko jox kuy fayantoo te xam naa ne ñaari yooyu benn dalu la ci kon nag moo sabab mu jox ko loolu sëriñ Mbàkke Joor nag nekkoon ku amoon wàccuwaay ci sëriñ nekkoon ku ragaloon yàlla lool sëriñ Touba wax na ne ci sëriñ Mbàkke Kajoor ak sëriñ Maam Moor Soxna Jaara la gise ci ñaar ñuy dugg ci bàmmeel te yóbbaaliwuñu fa bor yóbbaaliwuñu fu bàkkaar daal di wax ne ñaar ñooñu dañ maa noppal daal di wax ne lépp lu leen nit di jiitoo ci yàlla suñu borom coobare suñu borom la waaye lépp lu nit di jëf ci suñu borom rek def nañ ko Euh, li sëriñ Mamor Jaar daa wax ne faxaalum li maa yurit moom la sëriñ moom la suñu borom jëfandikoo ci ci sama diggante si Amadou Bamba waaye ku ne xam nañ ba mu yàquus kon sëriñ Touba suñu borom moo def tawféexu sëriñ Mbàkke Kajoor ginnaaw bi mu nekkee wayjur ci moom tamit mu teel koo nangu lool teel koo jox léppam njabootam gépp tamit mu jébal ko ko maanaa di déglu ci lépp ba sabab sëriñ Touba sedd ko ci boppam cër yoo xamante ni bii ne cër yu bii biire la ak Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala daana daana wax ne sëriñ Mbàkke Kajoor ku seddu ci sëriñ Tuubaa ay cër yu baree bari la waaye nag léppam rek mos sa génn euh, sëriñ bi ku dundoon sunna la waaye ku dundoon tamit yoonu euh, murit la euh, te amoon ku bari woon koo xam ne ku sëriñ Tuubaa daan diisoon la ndax su dafa wax ne bi mu ko woo ci Tuubaa mu fekk si ko fa mu ne ko dama bëgg nga ñëw limul ma dëkk bi sëriñ Mbàkke Kajoor am na fa juróom mbenn weer jàpp juróom-ñaar fii ñu mujj gis si sëriñ bi nga xam ne mooy barabu sëriñ bi boobu am mbaar lañ fa defoon daan fa julli julli waxtu julli juróom yëpp wax nañ ne foofu sëriñ Mbàkke Joor bind na fa sëriñ Tuubaa ñaari kaamil alxuraan ci loxo boppam foofu tamit la ko la ko la jaayantee jox ko boppam wax nañ ne keroog dagg kurus gi mu yoroon ne ko bis tey bàyyi naa lépp lu ma jàppoonte jàpp sa jëmm ji boo gisee leetaru njëbbal bi nga xam ne moom bi mu jëbbaloo da koo defaat ab leetar yaxal ko leetar boobu dafa jiital ne yow mi nga xam ne yaay Seex Ahmadou Bamba maa ngi lay xamal ne man mii di Ibrahima Mbacke na nga xam ne amul kenn ku ma yaakaar adduna ak àllaaxira pour sa jëmm ji leetar muy leetar bu gudd boo xam ne eh, bi mu ci dénkee Serigne Touba boppam it sàkku ni ci Serigne bi mu di yërëm ñëpp te dimbali ñëpp ndax xam na ne lépp eh, ci magasin suñu borom yi muy aw yiw suñu borom jël na ko jébbal ko Serigne Touba ba noppi mun na ko dogalu suñu borom boobu daf daf ko wax ne ko keroog bi nga ganee adduna laa xam ne. jàppoon naa ne boobu bi nga ñëwagud ne maag Serigne Mbacke Mor Anta Sali sa wayjur wa jàpp nañ ne wàllu yëpp ñu ngi suñu ron waaye keroog bi nga ganee adduna lañ nungu dogalu suñu borom xam ne yaa ñu jiitu ci lépp ma jël sama lépp jébal la ko kon kooku mooy Serigne Mbacke Kajoor mm-hmm. moo sabab bis bii bisub sant yàlla la bisub sant sëriñ Touba la ngir lépp lu Serigne Mbacke Kajoor am Serigne Touba day mel ni ci bis bii la ko amee ndax Serigne Touba bu mu ko andil mm-hmm. bu rëy la ndax Serigne xalimaam moom maanaa lu ne la te lépp lu mas a tagge ci yonte bi aleyhi salaatu salaam ci biir géej gi rek ci ñaari junni banti xalima yooyu la la ko def te sëriñ Mbàkke Kajoor lu ko andil ak sëriñ Caam mu des fii ci dëkkam bi ñu koy defee ci dëkkub cosaan muy Mbàkke Kajoor ni nga ko waxee léegi rek euh, ñëpp xam na ni fii la yoonu murit sosoo waaye nekkoon itam université daara ju mag nekkoon bërëb bu am tawféex ginnaaw tukkeeb géej gi sëriñ tubaa indi fi sëriñ bu duun vu que Mbacke Kajoor patrimoine la ci yoonu murid ban taxawaay dëgg-dëgg lañ ko war a delloo maanaam ban considération dëgg-dëgg lañ war a delloowaat Mbacke Kajoor euh, rawatina euh, fi jamono ji toll. waaw Mbacke Kajoor fi ñu ko war a dellu mooy mhm. day mel ni cosaan la loo xam ne murid yëpp fi ne ñoo ko bokk daa mel ni tamit murid yëpp war a xam mhm. fan mooy Mbacke Kajoor ndax fii la yonent bi alayhi salaatu wa waxe woon Serigne Touba. Mhm. ngir digal ko ci lu jóge ci suñu borom ngir mu woote wooteem bii mu bañ a yamati ci am njàngale kese waaye na yar nit ñi ci yitte te mooy defar leen tarbiyee leen ba jëmale ba àggale leen ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mboolem ñeent fukki góor yàlla yi njëkk jaayante yëpp ñu ngi jaayante fii ci Mbàkke Joor gii fi ngi gis Bàmba gii boo demee dañuy wax ne kerug yoor yoor ga fa la Seex Ibra Faal jébbaloo mm-hmm. kerug takkusaan ga fa la soxna soxna Faatija gane kon fii mooy Mbàkke Kajoor dañuy wax ne yaakaar naa yoon bu fekkee am na li ñuy wax carte dante mhm. maanaam fii moom mooy euh, dantité carte d'identité moom moom moom moom yoonu murit mhm. fii la lépp sosoo suuf si nga xam ne moom la Seex Saalihu radiyallahu taala daan ñaane mhm. nga xam ne guddi gàmm lañu ko daan tibb suufu si njaareem la suufu suubaa suufu si Mbàkke Kajoor suuf si moom la Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala wax ne Mbàkke Kajoor la njëkk a goreel ci suuf yi ba kuñ fi denc suñu borom jéggal la jumaa jii nga jàkk jii nga gis suñ kanam moo fi daan jullee mook sëriñ Mbàkke Kajoor garab googu nga gis noonu fa lañu daan toog bu ñu daan xaar waxtu julli juróom armée yii fi nekk sëriñ Tuubaa moo ko rëdd ci tànku boppam kon Mbàkke Kajoor moom euh, béréb la boo xamante ni bii ne maanaa jot na sëkk murid xam ne nag fii fi la lépp soqi ko waaye fii tamit mooy fi nga xam ne fi la taal bi tàkkee Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne moo ne dëgg dëgg dëgg lan mooy yoonu murit ba tax ñu man cee jariñu maanaam fii la jaayante ak Seexul Xaddim ki jiitu muy sëriñ Adama Gueye mu ngi ci armée yi fii la tëdd nga xam ne mooy moom la sëñ Tuubaa bind ci loxoom boppam ne murit bi njëkk a jaayante ak moom ginnaaw bi mu yootee murit bi e, yoonu mooy sëriñ Adama Gueye fii la kon Mbàkke Kajoor moom maanaam mooy yoonu murit mooy e, fi nga xam ne fi e, suñu borom di jibe ngir sëriñ Tuubaa woote yoonu tarbiya wii nga xam ne mooy loo xam ne lu ñu miinutoon la waaye nag eh, yoon la woo xam ne dafa ràppoon Serigne Touba ñu yeesal ko jaarale ci ay doomu aadama yu baree bari ba defar leen tërbiye leen àggali leen ci yàlla suñu borom bañ am loo xam ne mënuñu ko woon amee ci ku dul Seexul Xadiim loolu fii la amee. fi ñuy jeexale eh, dañuy dikkaat ci bis bi muy eh, bis bu am taarix ci ci islam rawatina yoonu murit tey ngeen koy taxawal ci boppu njaboot gi sëñ Maam Balla nekk fi yàlla na fi yàgg te mel na ni itam nemmeeku nañu kilifa yi aju ci yoonu murit moo xam muy cheikh si dongo yi wala njabootuk sëriñ bi wala njaboot ak euh, Mamor Anta Sali gépp ñoom ñëpp teew nañ fi loolu itam xam naa ci tënk rek day firndeel ne kon euh, Mbàkke Kajoor euh, ñëpp ko bokk ni nga ko waxee léegi kon bis bi ak teewaayu kilifa yi rek nga daal di tëjaale incha allah. waa xam nga Mbàkke Kajoor moom bis fii bérébu sëñ Mamor Anta Sali la mm-hmm. njabootu Mamor Anta Sali gépp ak njabootu sëriñ Mbàkke Kajoor benn lañ sëriñ Mbàkke Kajoor ak sëriñ Maam Mor Anta Sali mosuñoo teqalikoo ndax ku ne xam na ni fii bi ñu ko sancee ci 1880 sëriñ Maam Mor Anta Sali moo ko sanc ginnaaw bi Seexul Xaddiim maanaam bi sëriñ Maam Mor Anta Sali nalawee sëriñ Mbàkke Kajoor ku ne xam na ne Mbàkke Bawol la war na moom ndax mooy caatu Maam Balla Aysa moo sànc sanc Mbàkke Bawol waaye sëriñ Tuubaa mu diisoo njabootu sëriñ Maam Mor Anta Sali diisoo ceeg sëriñ Mbàkke Kajoor jox ko ndigalul ne ko rafaate la nañ la dëkk bii moo waral mu mu sababu Serigne Mbacke Kajoor des di wéy di moom dëkk bi ñoom ak njabootam. Mm-hmm. Euh, Serigne Abibou nag moo sosoon màggal gi euh, ba jóge fi sëriñ Omar Mbacke euh, wóotu ko fi def ko diir bu gàtt ba ci Serigne Abdou Khoudoss ba di Serigne Mouhamadou Moustapha mii fi bàyyi ko bu yàggul ñu koy ñaanal yàlla gën a yokk ndimbal ak ak njégalam mm-hmm. ba ci Serigne Mame Ballam ñi nga xam ne mooy doomi Serigne Omar Mbacke Gelongal mm-hmm. ak soxna Penda Buyo Diop mi nga xam ne mooy borom wasiya ba kon li ñuy ñaan rek mooy di leen ndokkeel yéen ñii nga xam ne yéen yéen waa presse bi mhm. di ñaan suñu borom gën a barkeelal seen liggéey mhm. di ñaan ñu ñëw ñëpp te Sëriñ Tuubaa rek tax ñu ñëw yàlla nañu ci am fajub aaju biir ak sama sababu bis bi daal mooy sant yàlla ak julli ci yonent bi alayhi salaatu ak sant Sëriñ Tuubaa ci bis bii nga xam ne moom moo ko may ahlu yoonu murid yëpp rek ñu ngi leen di nuyu baax di nuyu si yàlla asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Sëriñ Abdoulahi Mbacke ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne ni indiwaat na ko tey ci euh, bërëb bu tedd bi ñu nekk mi Mbàkke Kajoor gën na ko tàbbal bu baax a baax ci taarixu yoon wi waaye indi na itam njëriñ li fi làmboo ak euh, bis bi ni mu ko waxee góor yàlla yu bëri fii la ñu jaayanteeg sëriñ bi waaye am na ci ñoo xam ne tam itam féete nañ fii ku ci mel ni njabootu Cheikh Adama Guèye ñu ngi fii di màggal màggal gi kon euh, yaakaar naa ne ni mu ko waxee leer na nañ di ñaan rek ci barkeb bërëb bi barkeb Cheikhul Xadim mi nga xam ne moo wala lépp suñu boroom taas ñu ci euh, barkeem su yokkuñu ay xéwal ci barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf kirun wa faqiru umuri law fawatu wal qalbu tayyibun xariban ladana daay wa huwa basir Mor Mbacke moom sëñ Mbacke Kajoor euh, di jëwriñu waañ wi jiite togg yi di nuyu nag ñëpp rawatina samay waajur yi nga xam ne ni ñoo bool sëñ Mbacke Kajoor waaye nag mag moo ci mag waaye rawatina sama rak yi nga xam ne ni ñu ngi topp ci sama gannaaw dëgg heure bu ma gis leen ñu ànd ñëw liggéey bi kon nag man maa ngi sant ñëpp sant yi donga yi sant yi soxna yi nga xam ni ñu ngi ñu ngi sàkku si barke ci kër gi ndax eh, ñoom ñëpp ñu ngi jàpp ci liggéey bi wax dëgg liggéey bi dara jafewuñu ci ndax ñun ñëpp ngi àndandoo jàpp ko mi benn mais sant nag ñoom ñëpp ñu ma jël di leen ma ci seen kanam maa ngi leen sant bu baax a baax a baax di ñaanal bu baax it nag sëñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi mu tamu wér waaye nag ñoo ngi ñaanal sëñ Mamad sëñ maam Balla Mbacke xalifa sëñ Mbacke Kajoor yàlla ko fi yàlla yàggal te mu wér lool moo ki rakkam ak njabootam gépp ak i taalibeem ndax eh, yàggam mooy sunu ndimbal sunu njëriñ. yëg-yëg bu am solo lañu yëg ndax li naaj yi tàng tàng li métti métti méttiwut ñu ndax de ñi nga xam ne ni ñu ngi liggéey sunu waajur wu ko jar mu sëriñ Mbacke Kajoor di koo xam ne nii lépp fi la xewee ñu Mbacke Kajoor. yàlla féetale ñoo ak moom ñu ci am ci ferte nag am ci kontaan di ci sant kon ñun liggéeyal bi ñu toog liggéey seen Mbàkke Kajoor daf ñoo dañoo dañ maanaam li naaj bi tàng tàngal mi métti métti yeguñu ko yeguñu ko benn yoon ndax ki ñuy liggéey daf ko koo jar ci ñun te it tey bis bu rëy bis bu ngan boo xam ne nii maanaam xamuñu lan lan koy lan lañ koy xalaate ci suñu xol ndax bis bii ci la sëriñ moom sëriñ Touba bu ñu jógee ci géej gi ñëw na ngi seet si bàyyam tax sëriñ Mbàkke Kajoor bi mu egsee euh, ci la ko indil sëriñ Thiam bu mag ba lépp loo xam ne nii doon na ko liggéeyee rek mu indil ko ko ne ko yaa ma ci doy ndax day danga ma ko denc fa yàq yëggu kon nag ku mel noonu bu bis boobu ñu ngi koy fàttaliku ñu di njabootam bi ay sëtam kon ñun sant la ñuy def ak ak am kontaante di gën a kontaan ci ndaje bi ñu daje ñun ñëpp ndax ñun ñëpp a ngi te gis te famille dafa neex sunu sama rakk yëpp a ngi nii sama gannaaw ku heure bu ma geesoo gis kenn ñun ñëpp kenn desut kër yëpp ñëpp a ngi nii mboolem si Kajoor yi jigéen ñi ñëpp a ngi ci wàññi mboolem taalibe sëñ Mbàkke de taalibe a ngi ci ah, nga xam ne ñoo na maget ngi toog bu ñu digal def kon ñun sant la sant bu baax di ñaan rek leen ñaan yàlla gis bi képp koo xamee nii taxaw nga fi yal na yàlla fa see ajo waaw euh, yal na yàlla defar la defar la te nag defar nañ ci njort ndax Mbàkke Kajoor de day ëtt boo xam ne nii suuf soo xamee nii suuf suuf si ñaan la suuf si barke la kon nag ñoo ngi ñaan bis bii képp ku ñëw ndax bis bi yal na yàlla fas aajo ñu ngi leen di ñaan yéen lii ngeen di yëngu yal na leen yàlla defal barke. lii nga fi wut di ko ak jafe-jafe boo mas amoon ak lépp yal na ko yàlla saafara yàlla mën na ko yal na ko yàlla def. مدهي محمدا بنسم ونسر وهو اليوم السبت بسوري كتاب الله وسنة التي بها أهتمي أمانا وبزور قصور خلق mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi leen di nuyu di leen siyaara ci bis bu tedd bi di leen ci ndokkeel di ci ndokkeel bépp jullit di ñaanal sëriñ Maam Balla Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mbàkke Kajoor sun borom yàggal ko fi lool téwéral ko di barkeb Seexul Xadim di ñaanal ak siyaar sëriñ Baara Mbàkke mi nga xam ne mooy kilifa kër gii ñu nekk di kër sëriñ Mbàkke soxnaan di ko ñaanal sun borom yàggal ko fi lool téwéral ko ak mboolem ay rakkam ñëpp ñi nga xam ne ak mboolem seeni doom ak mboolem seeni taalibe ak mboolem njabootu kër Sëñ Kajoor gépp ñi ngi siyaare ñëpp nag ci màggal gu tedd gi nga xam ne mooy bisub Sëriñ Mbàkke Kajoor màggal gi nag ki ko waral ak li ko waral ki ñu koy defal mooy Sëriñ Mbàkke Kajoor Sëriñ Mbàkke Kajoor nag ku yomb xamle la mooy caatu Maam Balla sa mbaki bàyyam maam Bal na Aysa mooy caatu maam Maaram Mbàkke kon yaakaar naa ko yomba xamle la moom Mbàkke la ak kokke ak ndaam ñoo ko seq moom sëñ Mbàkke Kajoor kon moo ko sëñ Maamadu Anta Sali waajuru sëriñ bi ñoo bokk wenn waajur moom la ñuy màggal fii ci Mbàkke Kajoor bis bii nag kon jëmm ji seet yooyu lañ koy defal muy sëñ Mbàkke Kajoor nekkoon doomi maam Bal na Aysa nekkoon borom xam-xam nekkoon ku daan jaamu yàlla nekk ku daan jëfe xam-xamam nekkoon ab saahid bi ku dëndoon àddina nekkoon ab waarix ku sàmm woon ci xam-xam nekkoon ab baarix ku daan gaawe ci topp mboolem digale suñu borom yi ñi nga xam ne déggoon na aaya bi suñu borom di wax naan saarihu saabiqu ilal ilal xayraat saabiqu ila bokkoon na ci waaye saarihu ila xayraat yi bokkoon na ci ñi nga xam ne déggoon nañ aaya boobu mooy ñi daan gaawe di jëf aw yiw suñ bàkki Kajoor ci jëmm yooyu la bokk moom jëmu seelu jooju moom la ñuy defal bis bu tedd bii bis bi nag li ko sabab mooy doomam ji tedd ji nga xam ne doomam la xaritam la sëriñam la di sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mi nga xamee ne bi mu ci dëkk bu sell bii di Mbàkke Kajoor nekkoon fi ak waajuram sëñ Maamor Anta Sali ak waajuram bii di sëñ Mbàkke Kajoor ginnaaw bi fi sëñ Maamor Anta Sali génne àdduna ba sëñ bi taxawee fi yoonu murit ginnaaw bi mu am fi ndigal daal di bàyyikoo ci dëkk bi daal di dem Daaru Salaam ginnaaw bi it mu daal di fay bàyyi dem Mbàkke Bawal ginnaaw bi mu sanc fa ab dëkk muy Daaru Salaam ginnaaw bi mu sancaat ab dëkk mu di Touba ginnaaw bi mu jóge fa dem Mbàkke Bari Jolof ginnaaw bi mu jóge fi dem ci géej gi ba am fa juróom-ñaari at ak lu teg ginnaaw bi mu ñibbisee ca weeru baraxlu wa ba ca ñaar fukk fan ya jaar Ndar ba ca koor ga mu ñëw sannoo si kër sëñ sëraloo sannoo si wooree fa kore googu bisub alxamis la woon alxamis ca ajjuma samedi ci ngoon sëñ bi daal di gontoo sira daal di ñëw jaar fi jaar ba esse fii ca bisub samedi ma maam kori ba ba juróom ba ca ñeenteelu fan ba niki tey jii ñëw siyaar si waajuram xaritam soppeem taalibeem moom la siyaar si woon fii di sëñ Mbàkke Kajoor bis boobu nag moom la njabootu sëñ Mbàkke Kajoor gépp di màggal fii ci Mbàkke Kajoor di bis boo xam ne nag bis bu rëy la ci taarix bis bu rëy la ci yoonu murit ndax bis la boo xam ne sëñ bi bi mu ñëwee seet si waajuram sëñ Mbàkke Kajoor fii ci dëkk bi da ko andi sërite boo xam ne sërite bu màgg a màgg la sërite bu rëy la bokk na ci sërite bi mooy gise giñ gisewaat ñoom ñaar fii la amee woon ci Mbàkke Kajoor diggante sëñ Mbàkke Kajoor ak doomam ji sell jooju di sëriñam di léppam di di seexul xadim bi mu jógee ci géej gi fii la ko fekk siwaat bis boobu nag moom la njabootu suñ Mbàkke Kajoor di màggal bis boobu nag bi mu ñëwee moom suñ Mbàkke Kajoor seexul xadim mi nga xam ne moo jógee ci tukki bi bi mu ñëwee jox na ko sërite bu rëy rëy daal di koy ndokkeel daal di koy wax cofeel ak uh, yëg-yëg bi am ci gisawaan gi bi mu ñëwee indil na ko sërite boo xam ne bokk na ci li sëñ bi gën a bëgg moom sëñ Mbàkke sëñ Tuuba li mu gën a bëgg moom la ko jox ndax Sëñ Tuubaa daa déggoon li suñ borom di wax naan lan tanaalu birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun li suñ borom di wax naan mënu leen am ak mbaax mbukk lu dul da ngeen xool li ngeen gën a bëgg ngeen joxe ko waaye moom sëñ sëñ bi lim gën a bëgg bi ñëwee moom la andiwoon sëñ Mbàkke Kajoor ab sëriñ bokk na ci sëriñ booba jox na ko juróom-ñaari gaal yoo xam ne ay xasida la def ba fees dell ak fukki defukaay daa ak ñaar def ko jox ko ñaari junni xalima yoo xam ne sëñ bi bi mu nekkee ci géej gi bi mu nekkee ci géej gi nee na ko xalima yi day lépp lu ma bind ci laa ko bind sëñ Mouhamadou Lamine Gueye jamooj moo ma ko yónnee woon kere bi ñuy fanaan si yóoru ma lenn lu ma bind waaye lépp lu ma bindaat ci ci géej gi ci xalima yooyu laa ko bindee xalima yi nekk du ma ko jox kuy mer du ma ko jox kuy nelaw du ma ko jox kuy tooñ du ma ko jox kuy fajantoo te yooyu yëpp nekkul ci yow ndax xasida lu ci nekk xalima yi benn bu ci nekk mën naa tukkal àddina ndax xalima yi yéem a ga ca nekk daal di jël ñaari junni xalima yoo jox ko suñ Mbàkke Kajoor loolu mi nga amoon ci bis bii nga xam ne ci la ko siyaar si woon jox ko fukki defikaay daa ak ñaar jox ko juróom-ñaari gaal yu def dell ay xasida jox ko ay yére yu mu barkeeloo waaye yëmu ca la ca gën a neex man ne sëñ bi daa seet la mu gën a bëgg mu jox ko sëñ bi yëkkati na kaamil bi nga xam ne moom la jëbal suñ Mbàkke Kajoor ndax kaamil bii mooy kaamil bi mujjee bind ci géej gi daan na ko sëriñ bu toll nii da xanaa bàyyi Ibrahim mësee fu ko am ci ab tukki sëñ Mbàkke Kajoor bég ca lool ñëw ga rek doy na sëkk waaye sëñ Tuubaa xaside yi bu yëkkati woon benn kaamil bi nga xam ne moom la sëñ bi gën a bëgg mu doy sëkk bu yëkkati woon gaalu xasida mu doy waa mu jox ko juróom-ñaar bu yëkkati woon benn xalima mu doy waaye fukk ñaari junni xalima lay yëkkati jox ko ko loolu nag bis boobu moom la njabootu sëñ Mbàkke Kajoor di màggal ginnaaw bi nga xamee ne bi jóge na fi ba ab xalifaam wuutu ko suñu Amar Fall bi mu fi jógee sëñ Omar Mbacke gelongal mi nga xam ne mooy baay mooy waajuru Maam bale mi nga xam ne jéemari bi mooy xalifab sëñ Mbacke Kajoor ginnaaw bi nga xamee ne sëñ Omar bàyyi na fi ba sëriñ Abibu Mbacke mi nga xam ne moo fi mujjee nekk xalifa ci doomi sëñ Mbacke Kajoor yi sëñ Abibu moomu moo taxawal bis bii tuddee ko bis boo xam ne dañ ciy fàttali ko waajuram sëñ Mbacke Kajoor di ko ci daje fii di ko ci ñaanal kon moo taxoon sëñ Abibu sos bis bi bis la boo xam ne ñaan ak siyaar ak barkeelu ci Sëñ Tuubaa ak barkeeluwaat ci dëkk bi ak dundalaat dëkk bi ak du dekkalaat daara yi nga xam ne moom la sëñ bi ak wane waat sëñ bi ne fii la sosoo woon yoon wi moo waral sëñ Abibu Mbàkke ci ragal yàlla ga sëñ Abibu ci xam-xam ba sëñ Abibu ci baax ga sëñ Abibu ci bëgg yàlla ga sëñ Abibu ci bëgg sëñ Tuubaa ga sëñ Abibu moomu moo taxawal yoon wi te sëñ Abibu rek damaa jëlale bu tànnutoo waaye sëñ Abibu rek doy na sëkk ci matab joxañ ndax koo xam ne mën naa ne yaa jàngal sëñ Saaliw yaa jàngal sëñ Soxayb yaa jàngal sëñ Abdou Khadir ginnaaw sëñ Abdou Khadir yaa nekkoon imaamu Touba sëñ Abdou Khadir yaa jàngal sëñ Soxayb jàngal seeni doom jàngal seeni sët sëñ Habib rek dooy na ci ne bu ne woon nañ def bis rek doy na sëkk bu ne bu tànnatoo bis suñ Mbàkke Kajoor rek bu ne woon dee leen tànn benn bis rek doy na sëkk sëñ Habib moomu moo taxawal màggal gii daan ko def daan ko def ba 2005 ni mu fi bàyyi ko bi mu fi bàyyi ko doomi sëñ Mbàkke Kajoor yi daal di jeex sët bi njëkk a wuutu maamam mooy sëñ Omar Mbacke moom na yàggu ci yàggu fi ginnaaw bi mu fi jógee sëriñ Abdoul Khoudous moo fi nekk ginnaaw bi sëñ Abdoul Khoudous sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo fi bàyyi ko bu yàggul nekkoon doom ci kër gi nekkoon doom yi sëñ Mbacke sëñ Mbacke soxnaam nekkoon ab xalifaam yàlla dogal mu nekkoon xalifa yu sëñ Mbacke Kajoor bàyyi ko fi bu yàggul yàlla na yàlla dolli ko yërmande yàlla dolli ko njéggal dolli ko leer nega ne daaw moo daan jiite màggal gi ren nag yàlla jëfandikoo coobareem ci moom yàlla na yërmande yàlla fekk ko fa mu nekk ak ngërëmi waajuram ak ngërëmu maamam sëñ Mbàkke Kajoor kon daal jàppale na yéen a ngi kër kenn ci njabootu sëñ Mbàkke Kajoor mooy sëñ Mbàkke Soxnaan sëñ Mbàkke Soxnaan nag doom la woon sëñ Mbàkke moom sëñ Mbàkke Soxnaan mooy borom kër gi doom la woon ci sëñ Mbàkke Kajoor sëñ Mbàkke Soxnaan nag soxna an Jóob mi mi jigéen sëtub kokke la kon mook sëñ Mbàkke Kajoor ñoo bokk ginnaaw bi sëñ Mbàkke Kajoor nekk waajuram it ñoo bokk ci wàllu kokke bokk ci lépp sëñ Mbàkke Soxna An moomu moom nekkoon borom xam-xam nekkoon ngaabu sëñ Mbàkke Soxna An kenn la woon ci njabootu sëñ Mbàkke Kajoor moom it moom bi matee jàll jàng moom sëñ Mbàkke Soxna mii sëñ Tuubaa moo ko jox maam Cerno maam Cerno jàngal ko ginnaaw ba mu jox ko sëñ Daam Abdourahman mu jàngal ko alxuraan ba mu jóge mu géeju mokkal alxuraan bind kaamil moom sëñ Mbàkke Soxna An ginnaaw bi ci waxtu bindu kaamil rek ba yónnee ci sëñ bi di ko laaj. kaamil paquet bu muy bindee kaamil sëñ bi ci jëm boppam dafa yónni ndaw la nga waxoon ne ko boo demee neel mbàkki soxna boo eggee ci wàllu bind daan ne ko bu eggee ne ko yëkkati tàndar ma jox ko ne ko boo eggee neel mbàkki soxna diir bu muy bind kaay bi nay woor te bu dog jotee nay dogee sama tàndar ma ji kon mooy borom kër gi mooy sëñ mbàkki soxnaan ginnaaw bi mu jàngee ba noppi sëñ bi da ko téye woon njaareem boole ko fukki nit ak ñaar ñi nga xam ne ñoo daan jàngal sëñ Tuubaa kaamil bi borom kër gi di sëñ mbàkki ca ñooñu la bokkoon sëñ Mbàkke Soxna Anta ginnaaw boo fa la nekk ci njaareem bi sëñ bi yeesal Touba mooy fii ñu ko denc tey ginnaaw bi sëñ bi waajal yabal ay mbooloo yabal na fanweeri nit ak ñaar ngir ñi laabalal ko dëkk bi mooy fii sëñ bi tëdd ci Touba di fa jàngee kaay bi fan nit ak ñaar ñooñu sëñ Mbàkke ka sëñ Mbàkke Soxna Anta ca ñooñu la bokkoon borom ko gi sëñ Mbàkke Soxna Anta ci njaareem la nekk ba ni ko sëñ bi joxe ndigal mu dem Ngaabu moom nag fi mu féete woon moo di Ngaabu Ngaabu la nekk ba ni mu wujjee moom nag ab xalifaam tey mooy Cheikh Mouhamadul Amin Baara moo fa wuutu magam ju baax ja moo fa wuutu magam yu baax ya sëñ Mbacke Anta wuutu fa magam ji bi fi jógee bu yàggul mooy sëñ Moustapha tey moo fi nekk moom yàlla na suñu borom yàggal ko fi ak mboolem ay rakkam ak mboolem ak njabootam kon ñi ngi leen di sant bu baax lii daal moo nekkoon kàddu yi nga xam ne eh, doon nañ ko yëkkati ngir wan le bés bi lii cosaan li wan le it kër gii ngeen ñëw. mooy gën kër ci kër njabootu sëñ Mbàkke Kajoor yi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal mbokk yi ñëpp wasalaamaaleykum wa